لاستنارة كل الظلام سيدنا محمد خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وعلى آله الهادين المهتدين إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسندنا شيخ الأكبر الكبريت الأحمر وصاحب الختم الأبر والخوث الأشهر والقطب المكتوم تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والختم المعلوم سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني رضي الله عنه جعلنا الله ممن سقاهم من فيض معارفه بأعظم الأواني وحبانا منه بالمحبة الخصوصية التي لا تنحل عقدتها الموصولة بحبل التداني وأن يجعلنا من المصطفين الأخيار ويتفضل علينا بالخبول المنوط برفع الأقدار في هذه الدار وفي تلك الدار ورضي الله عن جميع أصحابه وكل من تشبث بأذياله وانتمى بأبوابه وعلى بقية المحبين ومن انتحى نهجهم من المنتسبين إلى يوم الدين أيها الإخوة وأيتها الأخوات نحييكم بتحية الإسلامية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفيلا من يواي أم كوارجي دفلين جابكم كمان mbolo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xéewal gi mu mayeeti toogoon nañ fi nii daaw mu defal ñu tawfiq ba mottalil ñu ko mayaat ñu fi yeneen ba mayaat nu bii tey yëg nag mooy waral cant cant mooy waral dolliku téere yi bokk nañ d'accord ne koo mënula fexe ba du sant mënoo ko xañ ak dolliku kuy sant rek foog nga dolliku koo mënul tee ñaan mënuloo ko xañ ñu nangul ko koo mënula tere mu tuub mënuloo ko xañ ñu baal ko bakkaaram kon ñett yooyu yëpp noo ngi koy boole ci jataay bi nuyoo bi nag ñoo ngi ko def ci làmmiñu sunu sëriñ Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Hadji Mansour mu Cheikh Alhaj Malick jiital ci nuyoo bi suñu wayjur bi Pape Alhaaji May Binta xafidahu llah wa raahu teg ci président daaira bi Alhaaji Madoun Diop ak présidente bi soxna Faama Ndiaye ak daaira bu ndaw bi seen président xaw ma njéeme la xaw ma kan laati nuyu ñi ci saal bi ñëpp ak ñi nekkul ci saal bi tey dégg kàddu gi ak ñi ñëwul te ñaan ak ñi ñëwagul te bëgg a si ak fu jullit yi nekk ci mboolem goxi àddina bi dawaa ir yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci koor gi door nañu ci bismillahi yàlla nañ mottali ci alhamdulilahi rabbil alamin waxtaan wi nag bala ma ciy dugg maa ngi nuy waykat yi di leen beral nuyoo di leen beral ziyaara ndax seen liggéey bi miin gi ko nit ñi miin tax nañu réere importance bi ku ñëpp toog nga jóg taxaw dar sa nopp way ki gën ñëpp mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg am nga mérite waaye nag dañoo miin li ñuy def te nit ñi luñ miin dootuñu ko fullaal waaye buñ leen fay fayalit yàlla leen yàlla fay bala may commencé waxtaan wi soxna ay Diouf mii daf ni dafa am benn nit boo xam ne daf ne may dégg ba bëgg ma yónnee ma fi juróomi téeméer te ni bu kenn waxturam yàlla na ko yàlla al xaalis yàlla mi tax mu bëgg ma yàlla na ko yàlla bëgg ñu waxoon ne bu ñu dajee tey ci waxtaan wi nañu waxtaan ci cheikh na ahmed tijaani ak tariqaam ak lan mooy tariqaam waxtaan wu jafe lool te yomb lool waaye bala ma ciy wax benn baat yéen ñépp na ngeen gëm ne dikkuma pour wax fi lu kenn xamul bi ndax li ma fi wax lépp ci teer ci téere yi la nekk waaye na ngeen ci gëmaale ne ñëwuma fi nag pour wax si lu kenn mën a weddi benn nit mënul weddi li may wax na ko ñëpp gëmaale comme ni ñu gëmee ne wax fi ma lu kenn xamul alquran rek laa fiy wax ak sunna yonent bi ak waxu cheikh na ahmad tidiane bu guddee ba gudd firi ba ko seydil haj malik firi kii may bëgg a waxtaane nag ku ñu xam la li mu indeet lu ñu xam la ku kenn xamul nag ñaare yaay indi lu kenn xamul waaw li ci ëpp ku kenn xamul yaay kan ba léegi yaay wax lu kenn xamul ba léegi Sidi Ahmad Tijaani radiallahu anhu ku ñu xam la kooku ci première jéego bi li tax ma di ko tuddu am na ñuy wax naan tariqa bi dañ koo importé dëkku fi ma bëgg leen a tontu tontu bu gàtt alquran bi muy wàcc saar wu jeex da naan madaniyatun wala mu ne makiyatun waaye gisuma ci sénégaliyatun kon alquran dañ ko importer dëkk fii dèjà nañ waxanteeg alquran ba noppi door a lijjanti tariqa bi sidi ahmad tijaani ku ñu xam la li mu indi lu ñu xam la suratu madaniyatun mu am ak makiyatun li undirakum bihi nag wa man balaga alquran wàcc makka ak madina nekk six mille six cent soixante six verset nekk sa quatorze saar yàlla ni nag mbooleem àddina moo leen di àtte noonu yëpp tariqa ahmada tijaan yi mbooleem fu ñu ko gënee soppe ko fa bo nit mën na caa dugg cheikh ahmada tijaan yi juróom-ñett fukki at la dund juróom-ñett fukki at la dund quatre-vingts ans fanweeri at yi ak juróom benn yëpp yorul tariqa bi mi ngi ci yeneen tariqa yi la des ca dund ga nag ci la jot ci tariqa bi muy cëram nag ci wàllu yàlla ak ku ko nangul nag ba ba sénc Cheikh Ahmed Tidiane juróom-ñett fukki at la dund Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu mi ngi ci baatu yasxabu saat xaabaa faat boobu soixante la ñaabale dix la soixante dix a ngoog ab lonk huit la baadee la huit plus cent soixante dix moom la naan wa aasha yasxabu bil jaddi nabi sharafan àndaale kuy géeju baawaan penku ak sow ya Cheikh Ahmed Tidiane juróom-ñett fukki at la dund mille sept cent trente cinq la gane àddina moom Cheikh génn àddina mille huit cent quinze soo seetee juróom-ñett fukki at ngay am bu dee ci atu gàddaay gi mille cent cinquante la Cheikh Ahmed Tidiane gane àddina mi ngi génn àddina mille ñaari date yooyu ma la wax bële moo dépendre ci juddu yonent yàlla Isa bi dépendre ci gàddaay yonent yàlla Muhammad boo ci calculer juróom-ñett fukki at ngay am mille sept cent trente cinq mille huit cent quinze mille cent mi ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax aynu maadi بايم ميغي تودو محمد بفتح الميم محمد من لا بايم تدو محمد كني واخ مختار موكو جور مختار احمد موكو جور احمد سالم ci ñettelu mam bi lako wa waa Maroc di dakal dàkkental nan ahmed ibn Salim ni Tijani ñettelu mam Salim Abil Aïd moko jur koku menen Salim moko jur Salim ahmed jur ko ñu di ko dàkkentale Alawaani Sayid Ahmad jur ko kooku Aliyun moo ko jur Aliyun Abdullahi Ibn Abbas kooku Abdul Jabbar moo ko jur جوركو ادريس الازغر جركو اسحاق جركو زين العابدين جركو احمد جركو ني ديكو داكنت النفس زكيه عبد الله الكامل جركو حسن المثنى جركو حسن السبت جركو علي بن ابي طالب جركو فاطمه بنت رسول الله رسول الله محمد عبد الله شيبة هاشم عبد مناف قصي هاشم عبد مناف قصي كلاب مرة كعب لوي غالب فهر مالك نظر كنانة قزيمة مدركة إلياس مبر نزار مع أدنان xanaa ki may waxtaane kuñ xam la ku ñu xam la de li mu indeet luñ xam la te lu mu gàtt gàtt balay conférence bi jeex da ngeen xam ni Cheikh Ahmed Tidiane li mu indi luñ xam la xamoon nañ ko ñu yokk ko xam yàlla natt ko nag nim nattoo borom cër yëpp moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam way juram bu góor dafa gaañu laata muy juddu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane way juram dund ba mu juddu yaayam dund ba mu juddu dem ba am fukki at ak juróom benn yaayam ak baayam gaañu ci benn bés boo demee ci kutubu tariqa bi wax nañ ni yaay ji moo gaañu ci yoor yoor baay bi gaañu ci tisbaar pest moo leen rey pest moo leen rey fukki at ak juróom benn waaye yaayam boobu ak baayam boobu baax gi ñu baax ak xam ne ku am njaboot war nga ko toppatoo taxoon na toppatoo nañ Cheikh na Ahmed Tidiane ba wutaloon ko soxna waaye soxna sa déggoowul ak moom bu Cheikh ne ndar mu ne Kaolack mu yewwi ko ci seen kanam des amul soxla yaayam ak baayam boobu gaañu ci fukki atam yooyu ak juróom benn te fekk na mu wattu alquranul karim ci juróom-ñaari atam mu des moom kot féeteeg boromam waaye la yonente bi sallallahu alayhi amoon di maamam yàlla defal ko lu mel noonu mooy alam yajidka yatiman fa aawa sunu borom daf ni yonente bi sallallahu alayhi nekkoon nga njirim ma taf ci sama bopp ba mel ne sa baye ngi dund loolu la defal Cheikh na Ahmad Tijani radiallahu anhu yaayam nag mi ngi tudd Aïchatu ma anjabat xawdun min algawaani fi kulli ma madaa min alzamaani كمثل أم شيقنا التجاني عائشة الطاهرة الحصاني سوى اللواتي جئنا بالمختار وصحبه وأهله الأخيار تمنية المريد تيجان ابن بابا موك بند نانا من دي سيب ناني جيجان ني دند تي جامونو بوين غور غور لول يا يشان احمد التجاني تك نالين ينكو لخيو من لو خew mu ne bala العباس أحمد ku xaw fuñ koy jëlee de Cheikh Ahmed Tidiane boobu nag bi mu amee ñaar fukki at ak benn la nekk professeur complet xeeti xam-xam yi ñuy jàng yépp yàlla defal ko ko ci dënnam mu boole ci nag am ixlaas mooy lu muy jëf rek mu sellal ko lu muy sellal mu fasal ko yéene def ko ngir jëmm yàlla kese kese kese kese kese li wolof di wax ràqi mu ràqi lool te belli maanaam ñam doon jàngandool raw na leen ku mu waxandool ñu gis ne moo la raw ku mu jëfandool ñu gis ne moo la gën a taarule fu mu egg si ñépp nuyu ko fàtte ñu fa nekkoon ñépp loolu nag bineegare xolli boroom xam-xam yi mu jamandoon teen mu naqaril seen xol ñu commencé di ko attaqué di ko xas di ko xus di ko ñaawal di ko sayti lu ne ñu wax ko ko ba ni dafa bëgg a indi ci lislaam bi bidaa te lii may wax booba jotagul tariqa bi di ko tuumaal rek comme ni muy amee nag ba léegi ba léegi nit ñi booy góor góorgóorlu rek bëgg a dem sa yoon rek ñu dabale seen làmmiñ yi waaye gis naa ci benn lettre boo xam ne Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu moo ko bind doon ci fàttali nit ñi ay jamono ne bu wax jotee ku noppi rek yaay yaay sang ba nee bu wax jotul nag ku wax lu baax yaay waaja kon wax dañ koy natt ndax bu génnee mën naa fetal loo bëggul woon mu am te dootoo ko dabbu ba faw شنو ويجرو باخوا شحاج منصور رضي الله عنه نيت لوون كوني بات كو نوبي كو جابو بوبام با ام ني نيو ديكو يد ان كو غور جي سلام ني دافا غات واخال نك مونان وكم لا مني بعض الاحبه عن السكوت والسكون وما السكوت سكوت خوف وجزع الا اني رايت اذا لم يبق في الدين من بين الاخوه غير المعارضه والتهمة والمخاذفة والمشاحنة والمخاصمة فصمت فرارا من الشيطان أنا بارنا لما سما سوبي نيو يرد من منصور كي نوبي جي من نوبي اك بات جي من بات اك تك واي مان كو ييغال ني غوغو دوك راغال نوبي غوغو دوك جاك تيتو ما راغالوما واي جيسنا ني بو دارا ديسول لومي سي دوند جي ديغنتي مبوك لودول ليكو اك ak xasante ma tëj sama gémmiñ ngir daw cheytaane cheikh biñ koy xas daf ni pat di toppatoo ëllëm alluwaam rek ba yàgg mu jekki-jekki ni taaqat himmati ila ahlillahi man kat samay yittee yëkkatiku na ma war a seeti nitu yàlla yi kooku de mat na seetlu am ñaar fukki at ak benn mokkal alquran jàng hadis jàng fiq jàng naxwu luga usul mantiq bayaan bu doon léegi nga kaalawu moom mu ne ma ñëw seet nitu yàlla yi ah bu doon léegi nu kaalawu ñaar fukki at ak benn nga jàng branche yépp yàlla may la ci lim ko ci may mu ne nag ma ñëw seeti nitu yàlla yi nitu yàlla yi mu doon seet du ma ko lim parce que day jël sama waxtu waaye nitu yàlla yi mu dem dañoo bokk d'accord ci benn kàddu te gisante wuñu ku mu ñëw ci yow rekk nga ni ko ma matlubuka loo bëgg mu ni la xutbaaniyatul uzma li ñuy tudde xutbaaniya laa bëgg bu doon ci armée tey mu ne dama bëgg a nekk maréchal nga ni ko lakk akbaru min zalika am nga lu ëpp lool boroom xam-xam yi nañu foofu lañu lañ xamee ni Cheikh Ahmed Tidiane mooy nitu yàlla ki dëgg nag ndax ku ne dama bëgg nangam ñu ne la am nga lu ko ëpp te taxul mu tayal loola taxul mu jey sa taxul nga woggante ku ne xaw woon ni tol naa nii ñu ne kon nag kooku mooy nitu yàlla ka Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu di wër nit yàlla yi kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba yàgg mu am ndigalal war a dem aji màkka moom cheikh ba mu déparé di aji màkka mu ne naa jaar xaahira mooy keer léegi dem fa waa misra jégg turam ñëpp fàq ni nañ ko seet si ba ñu ñëwee masala diine buñ ko laaj rek mu tekki ko masala diine buñ ko laaj mu tekki masala diine buñ ko laaj mu tekki ba yàgg ñu proposé ko ni ko dañoo bëgg nga toog fi jàngale mu ne ah jàngale de moo gën lépp waaye ci laa nekkoon te aj farata la ci ku ko mën te mën naa ko maa ngi aji Seydi Mahmoudul Kurdi yi gis ko propagande ko pour dugal ko ci tariqaam xamuloo ni am na ñoo xam ne tariqa buñ bokk ndam la bu fekkee seetlu am na am na ñoo xam ni tariqa buñ bokk rek ndam la bu propagande ko pour dugal ko ci tariqaam may ko weer di ca tariqaam lijaasaal ko ci bés ba defal ko tëkk diin Sidi Ahmad Tijaani yi ni ko ñaanal ma ma dem aji màkka dellu si te dara jot mu ni ko damantu laka zahaban wa iyaaban warlul garanti naa la dara la jot incha allahu garanti ba nangu na dem na ba del si dara jotu ko Sidi Ahmed Tidiane yi yor tariqatu kurdiyat dem Makka yegg si rek nuyoo dugg ci benn kër téere yi nañ daf doon beesal njàpp yàlla xamal ko foofu ni ko am na benn nit yàlla bu ne ci biir kër gi kër gi nga nekk mooy këram cosaanam mooy Inde Muhammad la tudd góor ga téere yi ne ñu amul woon soxna benn mbindaan bu góor la bind mu di ko liggéeyal mbindaan bi romb ko Cheikh Ahmed Tidiane bind leetar ni ko nuyul ma ki ci biir néeg bi ko ko jàng leetar ba rek ramassé mbóot yi mu yoroon yépp ne mbindaan mi bis naka tey maa ngi lay xamal ni sama dund a ngi bëgg a jeex ki ma yónnee lettre bi man mii di waxanteeg yow xalifa généralu ñeen fukki tariqa laa waaye moo may doon ci mbóot moomu ramassé mbóot yi yépp yónnee ko ko bil mu raasalati bindante gisante wuñu góor gi la mu waxoon am na ba Cheikh Ahmed Tidiane di taxaw arafa lañ ñëw ni ko góor ga dee cheikh doon na xalifa généralu ñeen fukki tariqa te nekkagul tijaan yi bankal waaw mu doon na xalifa généralu ñeen fukki tariqa te nekkagul tijaan yi jotagul ci tariqa bi mu dem madinatul munawara fekk fa abdul karim sammaan nga xutbu bu mag kooku gis ko rek di ñammi ñammi yàkkam ci ko dugg ak moom ci ruq bi wan ko ay tur yàlla wan ko ay asraar wan ko lu nekk Cheikh Ahmed Tidiane ni ko seetlu naa yi nga may wan soxla naa ko waaye am na lu ma gën a soxla ndax yii bu ma ko liggéeyee ba mu nangu ci man képp lay yem te man lu mën a jëriñ ñëpp laa soxla ndax ki ma doon mu di rasulillahi dañ ko yónnee ci ñëpp daal di ko fa bàyyi moo tax nit dafay rëy bët bëgg lu tuuti baaxul buñ sompee jox la rek nga tamasoo ni sotti na looy wut du fa jeex te ki koy wute mooy yàlla am na tabeeg maye ko dangay ñaan mu naddil la yitte ba am na solo bëgg lu baax am na solo xéer ci lu baax am na solo aj ji jeex Cheikh na Ahmed Tidiane dellu si abi samxoon di jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla gu doy waar goo xam ni boroom xam-xam yépp buñ koy nettali dañ daan yéemu bis bu ne mu wàccee kaamil di sikkar ci tur yàlla lim boo xam ni kenn xamu ko lu dul moom rekk ak maamam ndax barewaay ba ba bés rekk mu jaaxaan ci benn place boo xam ne espèce wuur mbël la espèce wurmbal la booru yoor yoor naaj wi ne dang maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu reeku ne fang ndax dégg nga li ma wax naaj wi ne dang maamam yonent bi fure mu reeku ne fang yaqzatan la manaaman waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bala ñuy dugg ci loolu am na ci boroom xam-xam yi ñuy weddi gis yonent bi gannaaw bi mu fi jógee waaye loolu bala may dugg ci wax ji dinaa ko laay yil ci alquran ak sunna alquran laa wax ak sunna pour laay yi loolu ku ne yonent bi kenn mënatu ko gis ci jamono yii نلا وورني القران الكريم نلا وورني ويدينغ سنه سيونتي بي نلا وورني ويدينغ القران ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يلا نينا ني سون الاسلام ba ñu ba ñu rey leen ñu dee nekk martyr nekk shahid nee na bul jàpp ne faatu nañ ñu ngay dund ci yàlla baatu ñu ngay dund ci yàlla nag moo mat a seetlu bu ñu ne ñu ngay dund ci yàlla daa nga defeen yàlla nekkul fii yàllaa ngi fii di kon bu ne ñu ngay dund ci yàlla ñu ngi ba fii ñoom ñoom ñi faatu ci ci jihaat te faatu ci jihaad bu ñu mënee jihaad ba am dund googu rasulullahi moo leen ko may yàllaa ngi fépp ma joxe beneen misaal ci guddi rañaan gi yonent yàlla muhammad yéeg na ci benn asamaan dajeeg benn malaayika mu nuyu ko ba pare mu ne ko foo jëm mu ne ko ci suuf mu ne ko looy doxi mu ne ko yàllaa ma woo moom lay wuy ji te booba moom muhammad ma ngay wuy ji yàlla ci juróom-ñaari asamaan kii di ko wuy ji ci kaw kii di ko wuy ji ci suuf huwa maakum aynama yàllaa ngi ànd ak ñépp fuñ nekk kooku alquran a ko wax de kuy attaqué attaqueel suratu ali imran bi ci des moo di ci laylatul isra yonent yàlla muhammad nee na romb naa yonent yàlla muusa ca bàmmeelam mu taxaw di julli مررت على موسى يصلي في قبره عند كثيب أحمر nee na fañ ko suul sax deeñ bu xonq la sama bët a ngi tegee ci moom kuy kàbbar di julli ci biir bàmmeelam kooku bu fi jógee jógewu fi bankal beneen a ngoog de te sun naa ko wax mu egg ca baytil maqdis moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dekkal yonent yépp ñu ñëw sàppi ci gannaawam ñu nodd liqaam mu jiite leen julli تيانين تيا يبعت ومني وتقدمت للصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام كلهم كلهم مقتد وأنت مصطفى وتقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمت لصلاة مقتدن وأنت الإمام مثلني وتقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمت لظلام فصل ووا كلهم كلهم يقتلك وأنت الإمام مثلني وتقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمنا للغلاد فصلى كلهم كلهم يبدو مقتد وأنت الإمام افلتني وتقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمت لذا لا لذا مقتد وأنت سبينت فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمت للصلاة بصر كلهم وأنت الإمام ليلة الإسراء كل أو كلهم مقتد وأنت الإمام yonent yi faatu woon ba nekk ci seeni bàmmeel yàlla delloo leen seeni arwaax jërëjëf jërëjëf mat bàmba la yaakaar waaye fu mu dégg communiqué bu ñu tudd Seydi Aboubacar si Mansour mu aju ci tariqa bi mu ñëw te bu ñëwee ka day génne alalam di joxe te wallahi boo génnoon tey ni ko passé lii mu romb la teg lu mat a bàyyi xel la li muy def lu mat a bàyyi xel la am na loo xam ne fajul soxla waaye rafet na yàlla ko yàlla fay yonent yi faatu woon ñu delloo leen seen ruux ñu dem roy ci yonent bi waa ndem moo ko man ñoo ko man ab sek ak moom xanaa kon Cheikh na Ahmed Tidiane yi bu ne gis naa yonent bi yàqu batan laa mën a man neex na dégg xanaa nit ku compliqué waaye wax ji moom compliqué tu te loolu sax cheikh jëkku ko wax gis naa yonent bi cheikh jëkku ko wax ci baxs bii ma def recensé naa ci téere yi fukki kilifa yoo xam ni wax nañ ne gis nañu yonent bi jëkk Cheikh Ahmed Tijani abu madian al maghribi wax na ni gis naa yonent bi yaqzatan la manaman abdurrahim al qanawi wax na ni gis na yonent bi yaqzatan la manaman الشيخ موسى الزواوا وخنا لي جسنا يوننتي بي ابو الحسن شاذلي وخنا لي جسنا سيدنا محمد دابور صح تلاكو جوخي حزب البحر finalement ñu jox ko cheikh na ahmed tidiane bi mu jotee ci tariqa bi yonent bi digal ko mu maintenir ko ci tariqa bi moom xizbul bahri te bi ko ko yonent bi jox nekku fi te ku ci sëriñ dimbali ruq yu bare nga ca أبو العباس مرسي وخنا نجسنا يوننتي بيقظة لا مناما أبو العباس مرسي ساق موم لم وخ بفل غنا غراو لو يحتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عددت نفسي من المسلمين يعني سما أمي بن وقت بمو أم سوسانت مني تجي سما يوننتي بي دوتو ملي مالي سما بابو تي جريت ني أنا كوكو مو جنة جراواتي مو جنة جراواتي كونيك سما يرك شيخ جلال الدين السيوطي بنيتو دي ابن الكتب waa ñu ngi ko tuddee doomu téere xam nga lu ñu tuddee ko doomu téere way jur wa dafa nekk jàngkat bare téere lool yaayam ëmb ko boroom këram ni ko ajjil ma téere sàngam mu dem di ajji téere ba faf wasin foofa ñu tudde ko ibnul kutub waaw su yott yu faf taalif kutub yi dul jeex شيخ الحاج ما يقول لك ستي كتير حق السيوطي نيل المعدنين نجاة لا تحيل قوله والله ذو الكرم سيوطي موتى تالف تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك téere bu وعلى waar la moom جسنا nee na يقظة لا مناما yonent إبراهيم المتبولي وخمن جسنا يرنتي في يقظة لا مناما الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه نعم بي واجه جلي تسبار يرنتي بمريك فان كلامم نكو يا بني ألا تتكلم لو سمع دوم لو تحبو برام خم خمين غني دي وخ غني نكو يا أبتا كيف أتكلم مع فصحاء بغداد naka laay waxeek waa Bagdad ak niñu amé éloquence ak niñu amé xam-xam te man amumako néna nee mu ni ma ubbil sa gémmiñ néna ma ubbi sa gémmiñ mu tëfli ci juróom-ñaari yon ni ma takallam udu ila sabil rabbika bil hikmati wal maizati al xasanati waaw ku weddi alquran jële weddi hadith yi ma wax legi weddi kilifa yi lo fi dessé لو في دسة طريقة بي بتقول تي تاخان تقول تي بروباغان تي أي تكسي القرآن أك تكسي سنة لتك تبو القرآن وسنتهما أصلاني أصيلان نرد إليهما نياري تشساني يريد لو طريقة بي موي وخو يونتي بي صلى الله عليه وسلم مودي القران الكريم واو شيخ جسمامم نك ابو سمعون maamam ni ko kaay bàyyi tariqa yi nga yoroon yépp ci suuf loolu indi woon sama tont ba ca ndar ca gàmmu ca gàmmu ga daaw dama xam benn kilifa mu ne moom ku bëgg tariqa tijaaniya mu may la ko te du tijaan ma ni ko cheikh mi ñu joxoon tariqa bi sax de bi ñu koy jox tariqa bi dañ ko ne tegal yi nga yoroon ci suuf ma ni ko logiquement rek sax loolu yomb na atte yow tuuba boo di tuubal nit ñi dugo go chi pa pitit kidu go la par kero chi morondi ben wa ko prezante ben na prezantasyon bu da war y na pareit ka m bubulewok kam li do se ki bubu bubu ko fèk si donk so li summi <laughs>

مربي جد كامل ووفاء إليه بسعد من الدارين له وبال أه واخبو أمي سيدة تسيدة بوير متنوخ سيدي أبو بكر سيدي الشيخ الحاج مالك سي موني فمن ذا الذي أمو الكن yëwi kuy sàpp si ilayhi ci tariqa cheikh wala mu yenal te am bi saadin ci texe min a daaray ci addunaam ak alaxiraam nee na law huwa baajiaw doonte yembare na bay nelaw ak a biddanti sax nag bu ko kenn dégg nag ba dem di biddanti mawlana sayidi aboubacar si radiallahu anhu daf فمن ذا الذي امل كن يأوي كوي بكي لتبسي اليه كطريق بي ولم ينل تدعى موم كوكا بسعد تكتخي من الدارين تنياري كريم بعد ذاك الاخرة لو هو ضاجع دونت ينبري نصح بدك تدكن على وكبيدنتي ما نك بوكين ديك بدك بيدنتي شيخنا احمد تيجاني ما مم ينتي بنا جوخ الطريقه بي نيكو نك ييغا يورون ييب تك كو سي سوف بو ديمي معاني نينا ما مم داف اترك جميع الطرق التي اغثت به حتى تفوز كل ما وعدت من غير خلوه ولا اعتزال عن الناس حتى تصل مقامك الذي وعدت به وأنت على حالك من غير ضيق ولا حرج ولا كثرة مجاهدة مولم لو جابون دي چوت يالا تغل چسوف ما جوخ لن لو سسلت يالا رك من سمام تكيب كوي ياكار اگ يالا مايسا واسطة مايسا انترميجير كما اگ لول يالا دو اگ يالا ها آه، شيخ نك نيكو tariqa bi nga may jëlloo lan mooy spécialité am wax ma lu mu gën a yi may tegloo ci suuf yi nga may tegloo ci suuf bii nga may jox lu mu leen gëne yemul lim nag baree baree baree baree bare ba bala ma ko tudd dana am lu ma fi jiital ndax yemul lim bare na lool su ma ko limee fii daaneel te tudduma charte yi mu àndal daa ngeen ne dama doon wax ne tiijaan yi ñoo gën saxaaba ya te waxuma loolu ñi ko nar a waxi gannaaw waxtaan wi maa ngi leen di yëgal ne Cheikh na Ahmed Tidiane tontu na leen te waxaguñ ko Cheikh na Ahmed Tidiane dafa waxtaan bés ci tariqa bi tudd li ko yàlla may teg ko ci wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yàlla moo ni ci alquran li la yàlla xéewale waxtaane ko sant bu niroogul ak damu santagoo mu waxa waxa waxa waxa waxa waxa wax ba yàgg si ali xarazim barraad alfaasi almaghribi jàpp ci loxo bi ni ko sang bi da ngaa màndeem yaa ngi ci wuri mu ni ko maa ngi sama xel alhamdulillah mu ni ko xanaa kon yow yaag sa gaay yi yéen a gën saxaaba ya cheikh ni ñokket ni ràtt néegam tëju ñetti fan génn ni ko maa ngi mel ne gunóor maag ñi ma gëm di raam ci suuf saaba ya mel ni picc di naaw ci asamaan sa nii la ko waxee dafa ni masalu amalina مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل النملة مع سرعة الخطار ما نيما گم گم طريق بي بو ملنا اي غنور دي رام صحابي ملنا اي بيتش دي ناو تي اسمان علي حراز بن نيكو مومو بيري ديغو مكو منوكو صحابي دي نيو جين تي بينج مي رك من دما جامو يالا با جامو يالا گي yonent bi loola mu réeku ma gis ko kon fi saaba yi déparé woon bi ma plafonné laa fa egg kii làmbatuwul de moo tax ci jawaahirul maani am na ci benn bunt mi ngi tudd baabu fadlu sahabati ma ada nabiina wal mursalin bunt bi jàngale ni saxaaba yi ñoo gën ku dul yonent bi ak yonent ya kon cheikh waxul ni ñoo gën sahaba saxaaba nu ci ñoom ci bi neena law an anfaxa ahadukum ملء الأرض dhahaban ma balagha مدة ahadihim wala nasifi ku amoon àddina ba mu fees ak wuru sa xaalis saraxe ko ci lislaam nee taxul nga am darajey genn wàllu benn saxaaba waaye nag teewul déglu leen li abil abbas ahmad tijaani am jële ko ci maamam bokk na ci li ñu may tariqa bi ku ko jàpp te sellal ko doo dee ci kéeféer mukk moom la jëkk garanti te bare na kuy paccax-paccaxi dëkk ci jàkk ja lu ne nga def ko bay sukuraat weddi yàlla am na أولى ضمان المصطفى العدناني لحزبه الموت على الإيمان شيخ الحاج مالك مينا yonent bi li mu jëkk a garanté Soxna Ahmada Tidiane ak njabootam mooy suñuy génn àddina génnaale àddina ak ngëm xam nga lu tax astaxfirullah yu bare yàlla ak salaatul fatix yu bare ya ak laa ilaha illallah yu bare ya ak jawharatul kamal yu bare ya taqoo gën koy taqoo di méditer sa borom waxtu wu nekk moo tax ngay deewaale ngëm yàlla ko may Soxna Ahmada Tidiane waaye bala muy egsi ci yooyu tariqa bi cheikh daf ko wutal ay chirut ay charte xam nga même société soo ko ubbee te amul ay règlement intérieur day daanu bu ci kenn mag cordonier ba nekk fële ci tileen te sol mbaxane mi weex di defar daal am na ay règlement intérieur intérieur yu mu tëral fa mu koy defare su ma ko ñemee woon dama naan kappi wala jogan kër sax day am ay règlement intérieur wala mu tas tasaaro cheikh jël tariqa bi teg ko ci ñeen fukki chart loolu moom xaju fi moom ci ñeen fukki chart la teg tariqa bi ñeen nit ñi ne fanweer ak juróom-ñeent ñeen fukki chart yooyu wala fanweeri ak juróom-ñeent séddalikoo ñeenti catégorie déglu leen bu baax de ñeent fukki charte yooyu ci tariqa bi wala fanweeri ak juróom-ñeent dafa séddaloo ñeent ñeenti catégorie ñaar fukki charte yi moom la ñu tuddee shurutul kamal al mutaalliqa bi shaxs ñaar fukki charte yooyu le mën nga nekk ci tariqa bi te doo ko def ni mu waree waaye mat gi tiijaan bi war a am doo ko am yow ndax ci sa jëmm ji la dépendre te defaloo ko ñaar fukki charte yi yeneen fukki charte yi mu ngi aju ci werd wi ci boppam waaye en même temps mu aju ci yow mi werd itam lëng leen yéen ñaar ñëpp xanaa fanweer a ngo ak ñetti charte yoo xam ni soo ko mënul a def moom doo mën a jël tariq bi ak juróom-ñaari charte yoo xam ni soo ko deful ba werdee ba noppi werde wu wérul ñett ak juróom-ñaar muy fukk fekki fukk muy ñaar fukk ñaar fukk fekki ñaar fukk muy ñeen fukk cheikh alxaaj malik di bind ci tariqa bi ba yàgg mu ne fal nasri fi l inaana li shuruti li annaha lawazimu lmashruti li ñu doon wax nañ ko tourné jëmee ko ci charte tariqa bi ndax tariqa bi ay charte mënul ñàkk taalibim ba sëriñ haadi ni bushra liman minhajana salaka wa raa wa ma taraka ku dugg ci tariqa bi ba dee day da nga am mbégte ci yàlla waaye ba ngay sàmm charte ya kon bu ñu dégg yu neex yi nag wax ci charte yi شرطي بيتي جك مودي أن يختار مقدما تقيا صحيح الإذن nga tànn mu xaddam boo xam ne ku ragal yàlla la te am na ndigal lu wér ci joxe tariqa bi te bare na kuy maye tariqa bi te amul lijaasa wala lijaasam sax wérul wala lijaasab ko ko lijaasaal wérul parce que am na ñu commercialiser tariqa bi de man am naa benn xarit ma dem ci biiroom ñuy waxtaan mu génneel ma benn saak fukki lijaasa nekk ca ma jàng ko ba mu yàgg ma xool ko lemaat ko delloo ko mu ni ma la wax ci sama lijaasa yi ma ni ko am nga lijaasa waaye doo mu xaddam mu ni ma lu tax ma ni ko koo doon may werd loo koy wax yow ca tariqa bi mu ni ma xaw ma ko ma ni ko doo mu xaddam doo mu mu ne ma waaw te sëriñ diw bind ko ma ne ko dala ko neexale rek wala mu tënkee la ko tariqa bi kenn mënu ko commercialiser lu addiye ji woom woom woom ku yeyoowul lijaasa boo ko joxee lijaasa tooñ nga amul it lijaasa Cheikh Al Hadj bu daan bëgg bëgg joxe lijaasa daan na ci sax li saxaar am na ku ni daan na ci sax duggulu xalwa pour set ki yeyoo na ko wala yeyoowu ko léegi nga indi téeméeri junni rek ñu daal di jël paquet ba junni defal la ca tamponné la ne la am yor nga këyit rek waaye amoo lijaasa lijaasa du noonu tariqa bi dañ koo militariser da ngay maaj di maaj ba yeyoo grade bi ñu jox la ko yeyoo woo ko bu la sëriñ bi juree yi doomu xaddam yeyoo woo ko bu la sëriñ bi juróo it doo mu xaddam yeyoo nga ko boo dëkkoon ca laman fàndeenin mu xaddamu cheikh nga tariqa bi léppam ci lu wér la ko teg an yaxtaara muqaddaman taqiyan saxiix al izn muqaddam bu amug ragal yàlla te ndigal la mu am wér kooka ko ko digal wér kooka ko ko digal wér ba ca Cheikh Ahmad Tijani مثلا ني كولا جوخ طريقه بي ني شيخ الحاج عبد العزيز كوكو جوخ بايام كوكو جوخ الفا مير كوكو جوخ شام شام حاج عمر كوكو جوخ شام محمد الغالي كوكو جوخ شام احمد التياني كوكو جوخ رسول الله كوكو جوخ جبريل جبريل يالله واي لي جازي كان خمول فمو جوغي دي تاخوالو رك ملنا كيتي بيني سوكر يي رك te bokk na ci juróom benn yi Cheikh na Ahmed Tidiane daan dénkaane ni day alak nit kuy maye tariqa bi te amu ci ndigal kuy maya tariqa bi te amuloo ci ndigal daf lay alak al intisaabu lil mashiqati min gayri idni min arrijal ci Cheikh na Ahmed Tidiane daan tere la bokk maye tariqa amuloo ci ndigal xam nga li ni muqaddam bu ragal yàlla dañoo laaj cheikh ni ko ku ragal yàlla nan lañ koy xamee ci nit te yàlla wax ni allahu aalamu bi man ittaqa man rek maa xam ku ma ragal ñu wëlbatiku ni la tànnal muqaddam bu ragal yàlla cheikh ni ah wa alaamatu taqiyi arbaatun man mandargay ragal yàlla ñeent la ku mu nekk ci yow rek ragal nga yàlla ñu ne ban la mu ne xifzul xudud koo xam ni li yàlla rëdd ne baaxul da ngay taxaw bala nga ca egg tilka xududullahi fala taataduha tilka xududullahi fala taqrabuha wa man yataadda xududallah faqad zalama nafsahu loolu moo tax cheikh alxaaj malik lépp nuñ naan dafa lënt rek mu ne laaluma benn mandarga ngoog ci ragal yàlla bi ci def moo di bazlul majhoot sa coono yépp nga dépensé ko ci bëgg lu baax dépensé ko pour sori lu bon Sidi Ahmad Tijaan nee na mandarga la ci ragal yàlla bi ci des mooy di wal wafaau bil uhuud matal kóllëre waaye loo fas fecci ko fa fi l ifaai ifaaun fa awfu wa naqdu l ahdi min fiali l fusuqi Cheikh Alxaaji Baay nee na ci risalatu latif ku ñu ni mat nga te doo matal kóllëre dañ lay nax fecckatu ko boo gis nee na boo ne kàccoor la wax nga dëgg ya ayuha alladina amanu awfu bil uqud wala wa awfu bil ahd bi ci des moo di wa qanaatu bil mawjud Cheikh na Ahmada Tijaani nee na koo xam ni kii doylu nga ci li la may nga jàpp ca yem ca sàmm sa ngor ànd ak ñett yi ma jëkkoon a tudd neena yow boo amee lijaasa mën nañ laa jàppe ko ragal yàlla kooku mooy première charte bi ñaareelu charte bi moo di an yuxaafida ala salawat alxamsi fi awqaatiha wa fi aljamaa julli yi juróom nga matal ko di ko julli ca waxtu wa di ko julli ca mbooloo ma شرط لا شي طريقه شيخ احمد التجاني في شروط الكمال لا بوك شرط يتاخ تي يان بما تسك تي يالا خمغا لوما تي دابو صلاة الجماعة تفضل بصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة يرنتي لي نانا كي دم تي مولو ما جولي جي اوبينا تويابا كي توك جولي موم كوت نيار فوكي درجة جيروم نيار gis nga ñaar fukki daraja yooyu ak juróom-ñaar soo ko tegalee ba muy juróomi yoon dafay nekk cent quarante cinq points ah vingt ba muy cinq fois dafay nekk cent quarante cinq points ki la ko rawee démb rawee la ko ba déwén moo koy dabee moo tax muy churutul kamal yonent bi toogoon ne ak saxaaba ya ni leen man tawadda alsalat wudua alsalat fa asbaga alwudua summa masha ila alsalati almaktuba fa sallaha maa annaasi maa aljamaa aw fi lmasjidi gafara allahu lahu dunuba ci njàpp njàpp mu tooy dox dem ca jàkka ja julleendoo ak mbooloo ma na yëg ne ba muy ñibb si bakkaaram yaa nga set wecc ba mel ne garab gu sëq ba xob ya wow ñu wo ponkal mu am doole mu gësam garab ga bàyyi ko noonu la sete ci bakkaar Cheikh Ahmed Tidiane def ko charte moom ci tariqaam ñaareelu charte baa nga ñetteelu charte bi moo di an yaati bil basmalati fi jamii salawaati yajharu biha fi lfaridati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 ubbiku ko bismillahi rahmaani rahim ca kaw léegi da ngay dem ci jàkk tijaani ñu am dëgër fitu doore ci alhamdulillahi rabbil alamin te li ci garaaw soo waxee téere laxdari yu lañ lay indil naan la waay man de jaaxle naa